أحمد مغنيا تهالا سنا وكان لي بكل زار وسنا أحمد مغنيا تهالا سنا وكان لي بكل زار وسنا أحمد مغنيا تهالا سنا وكان لي بكل زار وسنا خدمت في البر والبر وفي السر والجر والهر وفي فقلت يا رب الورى يا ربنا ومن بلاد كل ما شاء يا من له وجه إن شاء يا ربنا صل صلاة طاهرة ما سلام لهداك خيرا على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأبيض الكلام سيدنا محمد الولالي وسبي في الأهل والمال ومن خلاف خلو تبشيرا يا من لنا أرسلت بشيرا يا ربنا سل صلاة نائرا مع سلام برداك سائرا على الذي أرضيته خطاسي بخدم ثم لا أعطاشي سيدنا محمد والآلي وسبه في الآل والمآل ومن خلات زلو خد الخلات يا من كفاني حداك والمرات صلي صلاة راحية مع سلام بالمراد باقية على الذي قمته قد أخرجا مني ويوبي من فخرجا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وخلوا قدمي سرورا يا واهبا وبلي غرورا يا ربنا صل صلاة مشكيا كل اشتكاء مع سلام مرضيا على الذي أديته سنينا مجاهدا مغتربا سنينا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال وكل من قدم سرى يا من كفاني من وسى واغتر واسم بوجهك الكريم عمري من المكاره والنعم واجعل فؤادي خزينة الغلوب النافعات إنك المعطي العليم واجعل جواري أوطان هداك إلى الجنان سالمات من عداك يا ربنا سل صلاة جالبا إلى رداك لعداك خالبا على الذي جعلني لديه كسبي مصليا عليه سيدنا محمد الولادي وسبي في الآل صلاة شاملة للصلوات كلهن كاملة ما سلام لا يزال ناميا بما يدورني جهاتي حاميا على خليلك الحبيب عبدك أمدنا المختار نور جندك تنجعيني يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة صدقة خامعة ما سلام نور لا ينقطع على الذي به أزايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه جميع صلوات اليوم لك وجميع العدا واللوم يا ربنا سل صلاتنا إلى بيني وبينك درات جائلة ما سلام من جانب لما أهيب مسازعا لخيرنا ما لا نهيب على وسيلة أحمدا والآل وصحبه وأولي أحمدا يا ربنا صل صلاة صاحبا بكل در ما سلام صاحبا لنا سعادة وريما وسعادة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعا على الذي بيدخل للغرات بلا إدم ولا حزن ولا مرات سيدنا محمد والآلي وسبه في الحال والمعالي يا ربنا يا من تعالى أنزنا أن يسل لكل شهر وسنه ما سلا بك على المشفع من قاد لي مجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال واكتب في كل ما مني سدى من خدم حلاوة بلا كدى صلاة وسلام خيرا عبادة لك تسافي ميرا وجعل يادي عبادة تدور لو بسارة تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نصبي هذا اسمك القدسي مسارة لدى كلها وجل كتابتي مسايا خدا لو سينا يفتري يا خدا يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي معنا أول ملام وقادني إليك يا ربي بك فاختني بكلام حبك سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال واغلو يا ربي في الاثنين فوق المنى والهاجم المنين بخير آفة وخير قدري يا من كفاني قدرا القدر يا ربنا سل صلاة دارئة كل المفاسد تسود دارئة إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لديه تراريخا مهيا ما من الأمر يسلم من كل ما به تجيء سلمه على النبي والرسول أحمد والآل وصحبه وقاتي أحمد وجعل في كل tay ñi bisbu am solo di bisu màggalu Serigne daronson bis bi nga xam ci ni ak njabotam ci lañu dajal dajaloo di ki fàttaliku ak mbolam taalibe yépp yëpp ñi nay na ci kër kër Baye Gora nga xam mo jitt jiite jamaat ay Baye Serigne Hassane yépp ci biir réew mi muy ko xam ne suñu borom moko may tawfi ak dimbal muy ku neex andal mu muji mu jiite liggéey bi ci ay anam ko rafet rafet Baye Gora ginnaaw bu ñu ñu wax wax siara la di ñaan suñu borom guddal sa wéral la yalla kàttan la bu baax baax ba li nga yéene liggéey sëriñ Daam suñu borom sa kon yéen kaddu moom nga ñu mën a am solo bi nga xam ne moom moom la nekk di fàttu sëriñ Daam Seen ak wa rahmatulahi taala wa barakatu naa bu nuyoo si Muntaqa xalifa général sëñ Abdou Khadir Ndiaye ak lépp lu aju ci kër sëñ Daaru ñi ngi leen di sant di leen gërëm di sant euh, yi di sant waa dayre bi la tàmbalee ca ka ba ca kën ji gën ñu ngi leen sant ci liggéey bii ñuy liggéeyal sëñ Darou ñuy ñaan ci doore sëñ Touba sëñ Touba nangu ko ak sëñ ñu ngi leen ci sant di sant taalibe yi di sant waa dayre bi ndax jàpp nañ ci liggéey bi bañ ko tàmbalee ba léegi rafetal rek lañ ci def ak coono ak ñàkk seen alal kon dañ leen ci sant leen ci gërëm ndax bañu ñu bañu ñu euh, jàppee liggéey bi ba léegi wax dëgg yàlla amuñu lenn loo xamante bi kenn buntu xotaal nuñu ci kenn waxuñu ci lenn loo xamante bi lu may ak taalibe rek kon dañ leen delloo njukkal di leen di sant yàlla mi nga xamante bi moom la ñuy liggéeyal ak sëñ Daaru ak sëriñ Touba nu yàgg ko man yàlla yi nangu suñu liggéey ci doole sëriñ Dëru ñi ngi sant ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ndax ñëpp a jàpp ci liggéey bi gannaaw loole itam ñi ngi soññ képp koo xamante ni bii fu waay mën a nekk te bokk ci eh, te bokk ci Dëru Njaay ñi ngi ñaan nga dugg ci dayre bi di ci participer di ci def sa alal ak sam xel ak sa doole ñu ngi leen koy ñaan yal na yalla yàlla nangu ñu ñaan jërë ngeen def mbala lolou loolu mooy kàddu yi am solo xam liggéey nga bëggoon bàyyi góor ñu ngi lay yow te ñi ngi lay ñaawal bax bax di ñaanal ñi nga andal liggéey bi yep suñu xol seet na guy ñi ñaan suñu borom moom yàggale fi lolou te may la wër ba li nga yene liggéey suñu borom suñu borom dafa liggéey sa kaw suñu jot bak sewal xadim jere ngeen jëf Bilal bin Nabi واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة سلي عليه واكتب له بها بسالة الأحد وأبلغ أيام من يوم الأحد واكتب له بها بسالة sëñ Balla yewet it bu diglu dégloo sëñ ak liggey bi nga xam seen fan yeb ngir and ko di liggey di wot ay ndaje di def ay ay ay liggey am solo yo xam seen lepp rek diko ko bis magal gu am solo gi ginaaw biñ la nuyo siyaar sëñ bal ak mbollem na ñi ñi diglu ñëpp ak mbollem ñi tew fi ñëpp yeen kaddu mom nga ñu mëna a ci bis am solo bi fi ñu toll ci bis bi tay ñëpp xam na waxtu ñu toll nii mi nga bëgg paré ba li des moy sédélé ko rek mu dem waxon na ko tal nañu lu toll ci juroom ñenti wañ wañu ci ne taal na ñaar fukki mbana ak ñett loolu bu ñu ko boolee dañuy jox ñeen fukki mbana ak juróom benn moom moom moom la ñu taal ñu paree loolee 69 yi dañu koy séddale mu dem ci diggante baas bi ak kër kilifa yi ak mbedd li ci des muy 130 nangami loolee ci kër kilifa yi lañ koy yóbbu ndax kër kilifa yi sunu njaboot ñoo fa nekk moo tax ñun ñooy ñun ñooy dajale bu ñu dajale lu nam jox leen ñoom it kër kilifa yi jàpp bu baax a baax ndax ñu bari ci ñoom ñi ngi taalaat ci biir kër yi ngir di doole doole li nga xam si ne moom la axe bàyyi Cheikh Alassane dén yónnee ndax mbooloo moo toll noonu te dañoo dem ba jot ndigal ci ne li ñu taal moom àgg na ci dayo boo xam ne yokk ko dut yomb ba kilifa joxoon ndigal ne ak màgg gi léegi nu mën a toll quatre yi moom nañ ci góorgóorlu ba ba bañ koo romb doon na xëy na nag màggal gi ni muy màggee ak kii kilifa yi li ñuy taal mën nañoo jàpp ne bu ñu doon xayma ci màggal gi ci li ñuy taal su su kii lu mu néew néew day dem ci six tonnes ndax man am xam naa ci ñaari kër yoo xam si ne ku ci nekk tey 550 kilos moom moom nga taal loolee boo ko boolee kon une tonne lay doon moom bu daal taxaw nga doog a ci ci yeneen yeneen nag yokk la goo xam si ne yokk sëriñ Darou Assane la waaye yokk gi nga xam si ne ñun taalibe sëriñ Darou Assane yi ñun ñoo ko ci def ndax baatin bi la sëriñ Darou Assane yor waaye saayir si moom ñun ñoo ko yor loolu Basiru waxoon ne baatin moom maa ak borom bi waaye saayir yàlla du yóneen du waax lu ba daal loolee nag ñun ñun ñi nga xam si ne ñun ñoo ko mën a xam bu baax a baax ñu samal Serigne Dassane ginnawam ci ginnaw bi nga xamé ni liggéey na Serigne Touba liggéey bu reuy bo xam ci ne mbolam ñim andalon ci Serigne Touba ñepp xam na Serigne Dassane liggéey na mbolam jabar Serigne Touba gi ñepp ka nangul ak liggéeyam mbolam cheikh Serigne Touba yi ñepp ka nangul ab liggéeyam mbolam taalibe yi nga xam ci ne ñooy taalibe cheikh Serigne Touba yi ñu jamonante ak ñom ñepp nangul Serigne Dassane ab liggéeyam lolé nak ñun rek ño wara a diko sam serigne ibrahima dina faral di muy wax ne bala yalla may ab cër te xamoko dana ko nangu jox ko keneen nga bokk amatu doo kam kon cër bi ñu yàlla may nañ ko sàmm te téye ko foofu daal mooy fi nga xam fi la mbir mi toll ngir ñu àndandoo liggéeyal sëriñ bi waxtu wi xéewale Moustapha mi bëgg a pare léegi ne ñu jublu ci séddale bi suñu paree séddale comme noonu ma ko wax noonu lañ am na équipe boo xam si ne moo jiite li war dem ci diggante kër xel fi ak baas bi loolu ku ñuy wax Abdou Garan Diop moom moo ko jiitee su fekkee li nga xam si ne moo war a dem ci mbane yi war a ju war a dem ku ñuy wax Serigne Cheikh la am na loo xam si moom lañ ko dénk waaye nag équipe nga àndal équipe boo xam ne lu mu bon bon mën na fukki nit jàpp fukki nit ak juróom ñoom nga àndal ngir liggéey liggéey boo xam si ni moom la moom lan la dénk ci màggal gi ndax liggéey la boo xam si ni du liggéey bu ndaw liggéey bu diis la wax xam si ni mbooloo moo ko def suñu chef si na daan wax ne fu mu mën a doon mënut ñàkk diw moo jiitu ndax ñun sax misaal bi ñu ci joxe mooy waxtu woo gisee ñeenti xar ànd daa ngi xar wax na bu gooree ñëpp goor bu jógee ñëpp te moo na ñoom ay bàyyi rek lan waaye suñu borom moo binde ne faaw am kenn ku ne ci kanam ngir ñu topp ci ginnaawam loolu musawa Moussa Wa mooy fi nga xam di sant bu baax a baax nag commission organisation bi Moussa Wa ñu ngi sant bu baax commission organisation bi commencé ko ci suñu mag yi ñu ko bokkal suñu yaay yi ak suñu rakk damay gën a cité nag ñaar ñi muy suñu yaay yi suñu yaay yi dama leen cité bu baax baax ndax mag moo xam si ne na jur ñii man la mam te wóor na bu ñu nekk ci sa biir di liggéey amu ci kenn ko lay xol bëtu mën naa la jur bu la maam wal sa wal sa morom ma bàyyi ca kër ga wala man duma sa morom dañuy futtu ko di xex ngir liggéeyal Serigne Darsan xam na na ñoom li ñu jeex suñu dosen képp lañ ciy jeex moo tax ñu ci futuk di ci rey seen bopp loolee des na ko seedeel mbooloo mépp ba ñëpp xam ne ñi ngi ci liggéey bi na ay ndaw yoo xam si ne fël nañu ci liggéey bi te wóor na ma ne ni ma leen ñu doxee ko wóor na ma li ñu bëgg mooy téye liggéey bi seeni loxo ngir liggéey suñu dosen te loolee nag pas-pas moo koy maye ak bëgg-bëgg ak dogu ndax mbir mi moom dañuy wax ne géej ga kenn ku ne noo ci sóoboo nga ciy tooyee kenn ku ne ci ñun nag na jàpp na mbir mi mbiram la moom moom ci boppam na dem ba mbooloo mi gëm ni diw mun ta ñàkk liggéey bi waye nak mom bis bu gisene ne mënut a ñàkk liggéey bi kere li xam ne mën na cee ñàkk loolu nag ko weddi dañuy xool ña sampoon 97 tey ji yaaka naa ñu ci bari bari gisatuñu leen japp naa ne ñun ba muy ñëw ci liggéey bi Bada Diop ak Modou May Fall mi taxaw la fekkon ci liggéey bi tay ñu ci bari bari seen jot ak seen temps mayatu leen ñess ci liggéey bi te teew liggéey bi mi ngi mag mi ngi gëna dem kon nañ ci nekk te bañ nekk ci ni ñu ci war a nekkee gor góorgóorlu ci nekk ci ni ñu ci war a nekkee gor góorgóorlu ci ni ko Cheikh Fall di waxe ñi defee ko non rek muy dabu ci rek ngërëmal yàlla kese te bañ cee xool lenn bañ ca dabu kenn bañ cee séentu kenn sama baay nag daana wax ne di la ñemale ñaar ci liggéey bi muy ki lay sant ak ki gërëm ndax ki la ki sant ak ki lay xarab ndax ki nga xam si ne moo lay xarab tey moo lay sant ba liggéey ki lay sant tey moo lay xarab ba liggéey ndax nit ñi moom seen bëgg-bëgg la rek ku bëgg tey nga defal ko mun a yaa gën ci gone yi soo liggéey mu bëgg defaloo ko mooy di daa sotti bu léegi mu ngi ko dégg a góorgóorlu baax xam ne sëñ ci ab tënk bu gàtt sëñ Tuubaa moo waxoon ne ku ko liggéey lu toll lii dee ci sa yaram araam na sawara loolu moom dafa ma marqué ndax day wax ju wér ju amul ju amul tàndale yooyu moom day lu wér kere biñ ko ko dencee ci barab bii fii mu nekk wax nañu ne Sëriñ Tuubaa moo seede ne ku gërëm la nañ ba ci guy texee ñu dox lu toll ci meet ab gopp ñu denc ko fa boo liggéey képp ku ko fekk mooy sa imam mbooleem njaboot Sëriñ Tuubaa gépp ci ginnaaw si desan sa na Sëriñ Tuubaa julli ñuy sikki sàkk ndax day wëliwu wala lan motax mu diko jitlo jiitloo mag ñi mag daf ñu gëna ragal yalla te ñako sédé won duñ ay jahil ñu jangalan ba am xam-xam àggoon rikk ci yalla ñom ñoo sédé na sëriñ darasan da leena gëna ragal yalla motax tax sëriñ diko jitélo kon yoy yëpp ay mandargal yu nekkon yu nekkon ci mom ay yu bëree bëri ba amna wax bu ci mag ñi coowee sëriñ Tuubaa moo na leen sëriñ darasan man ak moom suñu ko doon misal dañu melni ñaar ñuy wër garab ku fekkou tambali mu mënoo xam kan mo raw ak sëriñ Tuubaa gis ngeen ni mu meloon loolu yëpp ay seede la man jëlee naa ci kilifa mu ne tukkib Serigne Touba se tukkib Serigne Touba sëñ des na ci liggéey rôle rôle bu am solo boo xam si daa nekk lu mën a wax ci làmmiñ waaye dañ ko xam ko ba ñëpp jot ci loolu dañ ko war a xam dañ ko war a topp dañ ko war a fonk waaye jaring, sëñ jaring na li mu jëf li mu rëy rëy rëy jariñ ñun ñun li jariñ mooy li liggéey loolu moom ñun nañ commencé xam sëñ jëf ñun jariñ jariñ sëñ liggéey rek nangoo nekk teel bi nangu liggéey rek képp ci mën jariñ ndax sëriñ moom bëgg gi mu la bëgg amul la amul la bëgg nga bëgg ko liggéey la amal بوساق وساق بالمسايا فإنه جل على ذاك خدير وبإجابة الدعاء الجديد خدمت بزر وسنائي إذ بك علق النبى يا من سؤال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب لازم في المعجزات بالسلام بالآل وصحب مزازي سلام وكل لي الدار وكل معي وكل لسائقا فوق المرامي بكل asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, ñu fas yéene cee sànni ay kàddu yu gàtt rek ci ndigalu suñu xalifa bi di sëriñ Abdou Razak di suñu xalifa bu baax eh, bu am yërmande ñu koy ñaanal suñu boroom yàggal ko fi te may ko wér mu yàgg jiite njaboot gi eh, yéen ñu leen di sant bu baax ci taxawaay bi ndax seen daayira bi kat Euh, ku ko tudd ku ne sa xel dana dem ci sëñ Abdou Razak sëñ sëñ Cheikh Ndiaye Abdou Razak ndax umpale wu leen nii yéen àndoon ak moom ca ba ngeen di door kon yéen duñ def lu dul sant leen te saa yu ñu leen gisee suñu xel dana sori lool euh, ñu leen di sant bu baax ci seen taxawaay euh, gannaaw loolu ñuy wax rek ni suñuy waajur wa de yéeneem amaana suñu boroom euh, lu ci bëree bari bi euh, bi suñu borom mayee ko mu mu mu dund lu ci bëree bari euh, taxawaayam ñëpp rafetlu nañ ko ñun nag yéene boobu fas nañ ko yéen fas nañ ci yéene dox maanaam lépp lu mu mébatoon fas nañ yéene tegu ci kaw yoon woowu donte sax du doon lu yomb ndax moom jàmbaar la joo xam ne neexut wuutu wóotu waaye luñ ci mën ci suñ kéemtalaay kàttan rek parce que nañ am taxawaay boobu parce que yéene liggéeyal sëriñ Daaru Asan parce que sax ci jaamu yàlla ak liggéey euh, noonu it lañ koy soññee képp ku ku bokk ci kër gi ndax kat ku bokk ci sëñ Daaru Asan ku ne euh, kenn warula seen ci lu dul lool sa damay wax saa su ne ne sëñ Darou Assane ñett rek a ko yitteel muy liggéey jaamu yàlla ak jokku mbokk keneen ku def lu dul noonu rek defoo la mu santaane defoo la nga war a def kon dañ ciy soññ suñu bopp di ci soññ ñëpp eh, di ñaan yàlla suñu boroom nag bis bi ñu di ko màggal ay ati ati at suñu borom yokk wér gi yokk man-man gi yokk xéwal gi ñu jàpp rek ne lépp luñ ci def ren rek am nañu yéene bu déwénee ñu def ci lu ko ëpp lépp lu suñu baay ba naaloon fas nañu yéene taxaw ci lépp loo xamante ne nii amaana yéeneem la woon te suñu boroom dogalul mu jot koo def daañu ci taxaw luñ ci mën daañu ko def kon ñuy sant ñëpp rek di gërëm ñëpp du ñaan jàll suñu boroom euh, nangu ñaan yëpp ci bis bi te suñu boroom gën a dëgëral mbokk gi gën a yokk kàttan yi yokk wërsëg yi ba màggal gi nga xamante ne nii comme ni mu ko waxee woon sànq suñu waajur wa da cee amoon ay yéene yu rëy rëy suñu borom defal ñu ci lu kaw suñu njort kon ma yi foofu rek di sant bu baax di santaat bu baax suñu xalifa bi te di ko ñaanal suñu boroom yàggal ko fi jëm ci walu liggéey social euh ginnaaw bi nga xamne yalla dogal na ne liggéey bi ren sun loxo la nekk actuellement yi nga xamne ne mo leen liggéey ci bis bi tay bok na ci li nane akir ñi nga xamne ne ñoo jóge ci yeneen dëkk yi di gan yi nga xamne dañoo ñëw ngir suñ Daaru son mo xam ay taalibeem la mo xam ay soppeem la ñu ñëw dara leen ci dalukaay yu mucc ayib ba top to leen ba nga xamne ne buñ ne kep ko xamne képp ñëwoon bu dewe ne da nga bëgg ñëw ngir top to bi xamne top to nañ leen ko ci walu berne ci walu tok waxtaan ak ñom wàllu dalal seen xel ba nga xamne si ne magal gi buñu agge dañ koy netti seen yeneeni morom ñu ba ñoña bu ëllëgee ñomit ñu mëna a waaj pour mëna ñew ñëw. bokk na ci tamit li ngeen xamne ne si ne mom ngeen gis ni mu jëm ci walu euh, suñu mbokk médecin yi nga xamne ñoo no andal mu ñuy ke docteur ngir mbokk talibé ñi ngi fi ñew kenn képp ko xamne dik nga ñu consulter la xol la lan moy sa jangura ñu yëkëti la nga xamne ne si ne buñ ko amé ci ay garab ñu jël ko jox la ko nga mën koo jëfandikoo bu fekkee tamit euh, garab garab yi nga soxla woon nekku fi ñu bindaloo kayit dem nga dem jëndi garab yooyu loolu bokk na ci liggéey euh, commission sociale ci bis bi beneen bi ci topp tamit ku ne gis na ne tamit mutuelle de santé bi nga xam ne si ne doon nañ ci dox ay at bay suñu borom subhanahu wa taala dogal euh, mu daal di ibbi ci ci année 2018 bi tamit ñi ngi sàkku bu baax a baax képp ko xam ne taalib suñu Daaru Xasan nga war nga ab soppeem ñu ngi lay woo ci mutuelle bi pour nga ñëw bok ci ndax mutuelle dafa nekk loo xam ne da fay nimbal di jappandal ci ki nga xamni ne ne dafa dafa tawat ta sak ku ko dimbali loolu moo tax moo tax mutuelle bi juk kon ñi ngi ñi ci lancer appel ñep ñu bëgg képp ko xamni ya nga suñu nga ñew bok ci bi ndax njariñal julli ñep la ndax li lay yombalal sa faju loolu julli bu nek war nga ci mëna japp bu baaxa baaxa baax banen bi ci top moy commission sociale tamit bokk na seen liggéey mbooleem fu waaye nekk ci màggal gi ma ak mooy moo xam commission euh, organisateur la wala euh, communication wala administratif wala fu mu mën di doon ñu dem yóbbu fa ndox moo xam ne si ne danañ ca mën a def la ñuy def moo xam lu jëm ci wàllu togguma la moo xam ci wàll lu jëm ci wàllu naan ga la. beneen bi ci topp tamit bokk na ci cotisation yoo xam ñu ngi koy laaj mu jëm ci addiya ji nga xam ne si ne mooy addiya suñu darosan ji am na ay ndaw yoo xam ne si ñu ngi leen ñu ngi leen ci biir baas bi képp koo xam ne si ne tamit am nga sa addiye jooy siyaare boo demee ci ñoom tamit ñoom danañ la ko danañ la ko téyel danañ la koy yeggaleel fa nga xam ne si ne fa nga bëgg mu àgg fa loolu daal bokk na ci ci tënk bokk na ci liggéey social ci